Macky Sall du nit ku bëgg réewam Macky Sall bëggul changement ci Sénégal Macky Sall parewul pour bàyyi suñu nguur gi il cherche tous les moyens qu'il peut pour semer le bordel dans le pays pour qu'il pense qu'après, comme il le dit, il va se rester au pouvoir parce qu'il y a des situations il n'a pas compris que Le nouveau bordel qui sera semé au Sénégal va l'amener la vie. Et on le dit, ça, il ne le comprend pas. Macky tu n'es plus protégé. Le nouveau bordel que tu vas semer au Sénégal va te coûter ta vie et la vie de ta famille. bul na waxuñu la ko il ne faut pas dire qu'on a oublié ce que tu devais il il dañ lay wax ñu waxaat la di wax di waxaat di wax di waxaat di wax di waxaat pour nga dégg ñu bu baax waaye nanguwuloo déglu on t'a très bien averti avec toutes les langues du monde non i jamut joola mun naa jàllo i njee jamut joola kasumai kasumai bare nje jamu jola voilà donc gars yi comme ni ma leen ko waxee on a une responsabilité dans le Sénégal on a une responsabilité dans le Sénégal pour faire savoir aux Sénégalais que on n'a pas peur avant tout combat c'est d'abord le ressaisi dañuy dallu di dalal doomu sénégalais yi di waxtaan ak ñoom di delloo siwaat seen xel te doomu sénégalais yi ki ci jiitu muy Macky Sall ñuy waxaat ak moom di dalalaat xelam di ko ne na def ndànk parce que Sénégal amul tapet loolu moom il faut xam ko on n'est pas waaye may nañ la mu neex bul jéem ñaar may nañ la benn nooy neex bu ko def nooy neex may nañ la benn bul jël ñaar may nañ la de benn bul jël ñaar ne prends pas deux une ne prends parce que boo jëlee ñaar mën na doy waar trop ci yow may nañ la benn de bul jël ñaar On t'a donné un. Ne prends may nañ la benn bul jël ñaar on t'a donné un ne prends pas lu ñu xam wax nañ la ko lu ñu man jëflante ko ak yow te sénégalais yi bii yéen ko seede gis ngeen ne le président Ousmane Sonko a appelé au calme total nee na bu kenn xeex nañu def conseil de concert de casserole ñu jël suñu xonq te ñu sol te ñu naqarlu li nga xam ne moom moo xew waaye bu ñu génn xeex nee na bu benn sénégalais génn xeex bu benn sénégalais génn xëccoo nee na nañu dal nañu joxante rendez-vous incha allahu rabbi dans les jours qui viennent dans la rue nañu joxante rendez Sénégal moom ñun dinañ fa campagne par force voilà <coughs> et je vais remercier tous les patriotes dans votre totalité tous les patriotes de la diaspora tous les patriotes nationaux la GPS vous faites un travail colossal je félicite vos nouveaux votre nouveau leader seen leader bu bees bi maa ngi koy félicité jeune boobu jàmbaar la dem ba Touré yéen a ngi def liggéey bu jaggi dayoo la GPS nationale et internationale <coughs> kontaan nañu ci yéen gis nañu leen nii la politique liggéey la c'est un travail de porte à porte on a l'espoir ku yor espoir da ngay liggéey nag jël espoir boobu traduire ko en réalité am nañu yaakaar waaw léegi dañuy jël yaakaar boobu traduire ko en réalité et président Sonko est plus qu'un espoir président Ousmane Sonko mbiram dafa jéggi yaakaar dafa ñëw ci réalité may ñaanaat doomu sénégalais yi fépp fu waay mën a ne nañu jóg taxaw xas suñu tànku tubéy te liggéey massification man mi Ousmane Tounkara je suis engagé à massifier dix mille personnes avant deux mille vingt quatre dix mille te may ñaan doomu sénégalais yëpp ngeen def même chose kenn ku ci mën a massifier mille cinq cent trois cent cent cinquante massifier loolu mooy combat bi di nga toll foo xam ne nee nañu la Ousmane Sonko nee na suñu defee li ñu war yëpp amaana amaana duñu soxla campagne deux mille vingt quatre incha allahu rabbi amaana duñu soxla campagne jéggal leen ma tuuti comme ni ma leen ko waxee dañu gëm Sénégal nañu continuer massifier ngeen continuer dugg ci dog gox goxaan yi non non bu leen laal dara bu kenn laal dara alkaati fi mu toll nii ñoom ci seen bopp doyal nañ sekk ci Cité Keur parce que foo xam ne kakaa nga fa nekkee ak yelwaan ma dolli leen loolu dégg naa ku leen romb ñu ne leen waa yoro yoroo foofu dara ah, nga joxe foofu dara des policiers ñooñu doyal nañu déedéet bu kenn xeex kenn le président Ousmane Sonko nous a donné un objectif on va aller remplir cet objectif je vous garantis Le jour que nous voudrons que Ousmane Sonko sorte de chez lui, il ne dormira pas là-bas. Billahi wallahi tallahi man maa leen wax loolu parce bis bu ñu jógee bu ñu barricadé cité góor kër gi on va arrêter nous on va aller attaquer Mermoz ñun bis bu alkaati yëpp demee cité kër góor gi barricadé notre destination sera Mermoz et le palais de la République loolu kay dañuy xàllil yoon Si toute l'armée est devant Cité Kergorgi, mais personne n'est devant le palais et personne n'est à Mermoz. Nous devons dégager une barricade, Inch'Allah. On va utiliser ces barricades pour atteindre Macky Sall. Vous savez, Mais si on met toute l'armée sénégalaise devant chez Ousmane Sonko, qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas Ce qui veut dire que Macky Sall et sa famille et ses amis ne sont plus en sécurité. Parce que toute l'armée est devant chez Ousmane Sonko. Maintenant, les endroits qui sont ouverts, on va aller les attaquer. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ça le plan. Quand ils barricadent Cité Kergorgi, on va attaquer le président Macky Sall et ses intérêts et sa famille et ses amis. foofu lañ jëm bu kenn dem Cité Kër Góor gi continuer leen ci li ngeen ne Ousmane Sonko mi ngi ci lim ñu war a nekk mi ngi def li mu war a def mi ngi ñuy digal te ñu ngi topp ndigal bis bu joxee ndigal ne tey la mbir mi di yem jour boobu la mbir mi di yem incha allahu rabbi nañu continuer suñu combat continuons notre combat et continuons-le de manière stratégique et intelligente continuer leen massifier waxtaan leen ak sénégalais fi mu toll nii juróomi sénégalais yoo gis ñeenti Pastef la ñu àndal dañu bëgg a dem ba juróom yoo gis juróomi yëpp Pastef la ñu àndal incha allahu rabbi on est à soixante dix à soixante quinze pour cent nous voulons atteindre quatre vingt dix à quatre vingt quinze pour cent avant les élections foofu la ñu bëgg a atteindre that's our nañu bàyyi Macky ak ñoñoom ñu nekk ci seen caaxaan yéen ñii Macky Sall bëgg a jël mubboo Macky Sall ñeenti atami yi moo gën a metti ñu ñu ñamal la safara jahannama léegi bu fekkee yéen bëgg ngeen jël chance bu mel noonu xanaa kon yéen ak ah, ñeenti at yi ngeen di topp yëpp da ngeen di barricade senegal doo leen liggéey parce que Sénégal moom Ousmane Sonko bu fi nekkul candidat kenn du liggéey Sénégal du dox donc yéen te ngeen a xalaataat ku Macky nax ba ne la yow di nga jël nguur xanaa da ngay jël nguur rek toog pale yaag sa jabar ngay lekk yàpp di naan ataaya di naan di naan cere di di naan cere meew parce que tu ne président du Sénégal non non non tu Sénégal parce que on va continuer di la daggal ndey di saaga sa ndey di saaga sa njaboot di xeex ak yow di jëflante ak yow jëmale kañ xalaat leen loolu bu baax imaginel rek nit ku yor xal ci loxoom loxoom tàng jër mu na la am kooku bëgg na la kooku bëggu la xal bu tàng noo koy joxee nit moom kay bu xal bi lakkee loxoom na ko sànni lu tax mu la koy joxe yow Macky Sall su mënoon toog Sénégal moom moo fii toog ku mu nax ne la yow yaay jël nguur gii bu la joxee nguur gi comment tu vas gouverner tu fa gouverner avec qui avec les quatre-vingt-dix pour cent des Sénégalais qui t'aiment pas wala pour cent qui sont avec vous na fet pas des erreurs bu leen dugg ci loo leen xamul ku Macky Sall dénk réew mii dugal na la ci nguuta Macky Sall dafay daw léegi moom comme day daw ku mu jël xal bu tàng bi teg ko sa loxo teg na sa loxo lu tàng de Sénégal fi mu toll nii ah xal bu tàng la de kuñ ko teg sa loxo dugal nañu la ci nguuta loolu laa amoon lu ma leen wax tey may sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat digg daje incha allahu rabbi suba maa ngi déjà encore une fois woo sama xarit yi waaye euh, bëgguma déclarer dara ndax dama ànd ak ay nit je sais qu'on a appelé à une grande manifestation de Pastef demain donc il faut écouter les chaînes bu fekkee ñoom euh, dañuy continuer toujours ak doole on vous le fera on vous le fera dire bu fekkee aussi am na lu changer loolu tamit incha allahu rabbi dinañ leen ko yëgal voilà Malick mbay mu ne Tunkara maa la faa non maa gën a faa ñun ñun moom comme niñ leen di wax rek dañoo gëm suñu réew te bëgg suñu réew te képp ku ko bëgg am dañ ko bëgg ak yow. voilà gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp borom croix yu rouge yooyu muy Amadou Diallo Amadou Diallo euh, yow moom bàyyi la foofu xaaral ma dindi la fii man seen dof ay nit yoo xam ne du ñu yeewu ba abadan soxlawu ñoo am ci sa man duma man man euh, gars yee ma tane moi je suis un dictateur voilà man dictateur la man ma ci seen caaxaan yooyu moi je suis pas dans man.